xayaati lil xayaatillaahi dafa génn benn yoon diggante boobu lay àggal xoola weer yu mu xaram ñëw fii ci ñaar fukki fan ba mu bëggee dellu xaaru ci fukki fan yaa juróom-ñeent xaaru ñaar fukki fan ndax ndar képp laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ak li ma doon wax léegi rek ñu naan léegi yàlla yow nga ñëw boole ci kër yàlla seetlu nga am na loolu. dëgg lu mat a seetlu la. kër yàlla kër yàlla kër yàlla fii kër yàlla fee kër yàlla fu ne kër yàlla. ay këram la. waaw. sa tiital ba waaw. loo xam ni. settantal settantal nga ni comme dégg dafa te fi ñu ko fekkoon rek léegi yéen a tey yaram nit ñi gis ngeen jërëjëf Serigne Touba bi wax naa leen ne ça dérange bu nu baaxee ñuy nekk nit nanu koy teeru di ko seetantal xam fu ñu koy waxee fu ñu ko dul waxee ça dérange bu mu dérange rek nga bàyyi non non ça dérange léegi dem na ba ci armée hmm. sëñ Bassirou Abdou Khoudoss xale bi nga xam ne moo jiite woon liggéeyu jumaay Daaru Muxti te bokk ci man bi mu faatoo dafa gis ma dugg ca bàmmeel hmm. ba mu ñëwee ne seen bas ne ma waaw yow kañ nga daan def bi dugg ci bàmmeel man ko est-ce que maa ko tey man dama faa dégg jërëjëf si surtout mu dugg ci bàmmeel mën naa ñëw ci armeel yi fekk fa jërëjëf Serigne Touba Pape hmm. ma dugal sama bopp ci biir xam hmm. nga jox ma ko te loolu moo jërëjëf Serigne Touba ko waral laa ilaaha illallaah jaar salaatu ala dara mu ma dugal fenn. gis ngaa dégg loolu. man sa mère noonu moo ko nettali ci téléphone. noonu la demee bu ma sakkee sama sakk nag ku yebbu si ba te ko sinon. voilà xëy na dara yëngu ma àjjana daal lay dund. Hmm. Serigne duma mer duma gerte duma ñàkk duma jàng duma angoissé duma stressé ba kii kii kon nan nga war a sant te nit rek nit rek nit yooyu dafa war a dalaa yooyu dafa war day dal nit te duma dal waaw hmm. ah, léegi kon man waruma sant nu ne. di tax naar yi journaliste naar yi di ma tàcc ci café ci nuyu xëy xëy ba maanaam jax jaxa. ñu hmm. ne la yàlla fi Cheikh Touba Diakha la ku tedd ki wax. Hmm. man dinaa ko def loolu naa. ku tedd ki moo ne maa ngi sant bay sàllar ñu. ndem wax nga ko rek dinaa ko def loolu naa dinaa ko def loolu tubaab. tubaab bi sax ngi leen di def. lu mu bind lu ne. almati yu Ahmadu ku tedd ki lu mu bind lu ne boo ko seetal dalee. lu mu déglu ne bokk dinaa ko defloon naa. dana béy boobu rek laa wax naa leen si ma tax ndax xamuñu wax ji wax lu. Hmm. ndeysaan. ci kanam rek ci bët. des na leen xaaratul bii daal. Hmm. ba Soudan Modou Mbaye sant. ma ngi koy wax tubaab yi jox naa leen nañu ma naa leen si kanam. waaw. ñu ma dégloon naa gis nga seen teel teel yi yéeg seen rajo rajo yooyu ñu ñëwee ak ñu naan bëggee ko man xamee déglu maa ngi wax. waaw maa ngi lawul law gi ba duñ ko tey. ndax dinaa leen wax loo xamante ni bii dañu naan lii dooxi ne effectivement dooxi dooxi raq li philosophiquement vous êtes abal man ni bu mu ni waaw wala de bon waaw li ñuy dund bu ñu nee àjjana waaye sama wax naa léegi daaru salaam daaru xalaat juróom-ñetti àjjana te benn bu ci nekk am lu la fa yóbbu gis na muy saa bi maanaam biir boobu moo àjjana ku ci nekk ci juróom-ñett yooyu am na fa kër am na fa ay sax ci bëri yëpp nag ñu ngi ne ni nga koy amee fii am na ni jaaree nag Tuubaa feneen feneen ak feneen mooy saa bi maanaam hmm. bi waaw fu ne àjjana yëpp fu ci ne am nga fa ay appartement hmm. loolu bu ko dem ci cirque ba gis ni ko ku tedd kii defal àjjana yi ni ñu mel te ni ko nar a kii waaye lii ñu nekk itam àjjana la. waaw hmm. lii ñu dund àjjana. waaw àjjana du dara du lu neex la. waaw te soxla nga neex. waaw. jërëjëf sëñ Bakir kon ba nga ñëwee jërëjëf bu ko defee. waaye nag lii nag moom xam naa avant première lay doon. waaw si avant première. sëriñ bi le 22 lay le 27 le 28. le 27 ci le 28. waaw xam nga nag xam nga li ci biir. waaw xam nga li ci biir. mënut a ñàkk mënut a ñàkk ndax lépp moom la. te loolu loolu la faral di waxee di jëndul ko nekkal mu ne xoolal ñu Ba su Chouba Mima Ujo Azza Zaza Zapo Wasanija Zaza te Xurile Ramamuna juróom-ñetti code yooyu. lu nekk lu nekk la nga xëy ci biir abajada da wasa oto yo kalamaaada xala sa taafatda acha mi ngi te loolu ëmb lépp langue bu mën a dégg ci àdduna bi ci foofu la jóg ci ñaar fukki lettre yooyu ak juróom-ñaar